yéen i kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf gisuma ci Sall démb waaye bi mu gisee nii waa këram yi def këram gi mu di siège APR bi am na lu ko mitti pil yéene kay bi réunion bi état major Benno Bokk Yaakaar woote woon démb ci dëmmante ci la mujj farandoy Amadou Ba yi ak farandoy Diouf Sarr yi journal bi ne nañ ñoo fa doon jàppante ab résolution bu ñu defoon ngir doon ca xamle ne ñoom ñëpp ñu ngi ci ginnaaw Macky Sall résolution boobee la ñu bëggoon a waxtaane waaye ndajama yeggul Mamadou Gueye mi jiite mouvement pour la refondation des valeurs bokk ci Benno Bokk Yaakaar di ñu xamal ci l'observateur ne la fa xew yëpp militant yi ñoo ko sooke jël kàddu gi di wax ñu di ko yuuxoo ngir bëgg koo humilier yéene kay bi tegal ñu ci ne premier ministre Ba mu jëlee kàddu gi di wax wax ja yeggul ab micro la ñu coupé boole ceeki di ko yuuxoo foo tollu di dégg gars yi Diouf Sarr di yuuxu naan bojo bojo yi seen bàyyi ñëw na ca la jàmmu jeexe siège APR ba salfaaño si seen naaw kurpañ a tàkk pompa gazé jolli journal bés bi la jour nañu li waral coow li mooy bi Abdoulaye Diouf Sarr jëlee kàddu gi di wax dane Ndakaaru ñaari candidat moo am muy man ak Amadou Ba ci la ko Amadou Ba tonto ne ko sooy wax waxal rek ngir sa bopp bul wax ci sama tur man duma candidat ci lenn journal bés bi la jour nañu ci la militant yu Abdoulaye Diouf Sarr yu jógee di ko yuuxu ak a yuuxoo coupé doon waxe journal lañ fa nañu état bu benn bokk bokk yaakaar bi ci ndakaaru seen réunion bi ñu woote woon démb bëggoon caa wane ne bennoo nañu la mujj ba waxee ne ñaari candidat ñu am ci ndakaaru muy man ak Amadou Ba mu toog yëkkati baaramam di ko weddi ak di ko ci ay waxam loolee moo mitti ñi tax ñu yàq ndaje ma ndaje ma journal Le Témoin mi ngi ñuy wax ne ab assemblée générale woon bu dajale woon responsable yi Bokk Yaakaar yi nekk ci juróomi département yi ci ndakaaru li ñu bëggoon moo di xamal président Macky Sall ne koo ñu tànn rek ànd nañu ak moom waaye malheureusement ci ay xeexoo ci la mujj Les Échos bind ne pro yu Amadou Ba yi ak pro yu Abdoulaye Diouf yi ñoo fa doon giitangas li Amadou Ba tontu Abdoulaye Diouf bi mu ne Ndakaaru ñaari candidat ñoo fi loolee moo ñuul waa kër Abdoulaye Diouf yi ba tax ñu yàq xew ay jege ñaale moom premier ministre Amadou Ba di ñu wax ci xët mu njëkk Vox Populi seen waa ji Amadou Ba reculéwul benn yoon ci candidature Benno Bokk Yaakaar Macky Sall mi bu ko tànnee def ko candidat Benno a séddoog seen ba musuta wax ne du candidat candidat bi yëglu ba ñëpp dégg ko di Ndonga Ndiaye xëy na séq waxtaan wu yaatu ak waa Sourcoi njoolum bawal gi di Ndonga Ndiaye mi woon conseil spécial bu président de la République njoolum bawal gi di Ndonga Ndiaye mi samp am dëndam déclaré candidaturam ci élection présidentielle yi war am ci réew mi 25 février 2024 nee na ca waxtaan même bi muy doon conseil spécial bu président de la République nekkoon ci wetam bari na ay décision yu Macky Sall daan jël daawu ci ànd ak moom te daan taxaw wax ko ñëpp di ko dégg lu ci mel ni nii wii nii noo gi fi Macky Sall doon waxte mu yàqaleen lu bari mu ne bi muy nekk ci wetu président Macky Sall ñu fa nekkaloon ñoo xam ne liñ ko mës a jàppe moo di tête brûlée maanaam nit ko déggee a a a Karim Wade ak Khalifa Sall du lu baax teg na ci ne Benno Bokk Yaakaar gii mu gis ci tas la jëm ñu dem ci réew mi quotidien mi xëy di ñu xamal ne waa Benno li ñu woote jamono ji mooy Benno ak booloo juróomi département yi ci Ndakaaru muy Kër Masaar di Pikine Tëngéej Géejawaay ak Ndakaaru def nañu ab assemblée générale tënki cëb résolution boo xam ne lañ ca wax mooy ñi ngi ci ginnaaw Macky Sall ku mu tànn ne mooy candidat Benno Bokk Yaakaar ñu topp ci ginnaawam ginnaaw loolu nañu dellu ci l'observateur xooli xibaar bu tiis ba xew ca Daaru Marnaan ga ci Tuuba démb ay boori 10 heures ci guddi journal bi nee nañu benn miir moo fa daanu ba faat fa ñetti doomi aadama